salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di ñaan réew mi di senegal yàlla na fi suñu borom doole jàmm di leen ziar ci màggal gi ñu jógee waaye di leen ndokkale ci weer wi ñu nekk muy weeru gàmm di ñaan yàlla nañu suñu borom may fekkee ak ba ñu mën koo fekkee jàmm ak salaam lépp luñ fa ñaan yàlla na ko suñu borom nangu ful ko mu doon ay xéwal ñu am mbégte tey ci dalal koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi kenn dootu ko présenté it ci tund woo nga xamante ni mooy jàpp Mali Bamako miin nañ ko bu baax muy Cheikh Gueye borom jooni jooni moom lañ dalal fii dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu koy suivre fii. 221 Cheikh bi ñu ngi wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu dalal bi ngeen ma dalal fii. di nuyu waa senegal di nuyu waa àdduna bi yëpp di ñaan kenn ku ne rek suñu kàddu fekk leen ci jàmm. mën nañu xam tey lan moo waral turu jooni jooni bi. waaw turu jooni jooni bi moom mi ngi bàyyikoo ci alpulaar yi ndax garab yi ñuy jaay nga xam ne mooy garabi kàttan garab yooyu dañ daan wër ci luumaay alpulaar yi di ko wecceeku léegi nag alpulaar yi suñ ko jëndaa ci ñun suñ ko jëfandikoo rek liñ ci soxla dañ koy gis ci daar daar bi léegi nag fuñ ma gis ci luuma bi rek di ma wax borom jooni jooni ba mujj jooni jooni yooyu rek moo law topp ma ba fi mu ne nii mm-hmm. looloo waral jooni jooni ji mm-hmm. mu mel ni euh, euh, liñ naan wa ma shahidnaa illaa bimaa alimnaa nit doo seedaloo xamul euh, moo gis ni diwaanu Mali ko bëri nga fa tànk trop nit ñi di la soxla di la woo ba bi ñu toogee fii rek li nekk ci ay ceg-ceg ci suuf di la xaar kenn xamul nu mu toll lan mooy sa secret ak sa ak diwaanu waa Mali. waaw diwaanu waa Mali moom dama am ak ñoom kóllëre gu yàgg ndax alpulaar yi nga xam ne ñoo ma tudde jooni jooni ñoom laa xamante xamanteloon fii biir Sénégal. Mm-hmm. di jëflanteeg ñoom di jëflanteeg ñoom ba yàlla dogal ñoom it ñu am ay famille Mali garab yi ma leen di jox ñu koy jëfandikoo di ci gis résultat. Mhm. ñu boole waa Mali. may dem Mali ka ñëw ba Mali fi mu ne nii. Mhm. ma am fa baas bu rëy. ndax fi mu ne nii nii ngeen may defalee émission fii ci biir Sénégal. Mhm. noonu lañ may defalee émission ca télé Mali. ma leen di jox xam-xam bu wér di leen jox garab yi wér ñu koy utiliser di ci am résultat hmm. looloo waral diwaanu Mali nag ñu yaatu fa lool hmm. ndax fi mu ne nii nag Afrique yaakaar naa ñu ci gën a compliqué bambara yi bëriwut dëgg la ñoom booy jëflante ak ñoom jëflante waat ak moom ñaari yoon rek hmm. xamal ne lag leen di defal baax na te kenn du leen nax ci produit non kenn mënu leen cee nax ndax ñoom garab yi ñu yor biir Sénégal am na ñoo xam ne dañ koo xam toog ci seeni kër defuñu ko sax liggéey. Mhm. boo leen laajoon ci garab bu ñu la expliqué ci garab rek yow da ngay dar sa gémmiñ. Mhm. ndax dañoo am xam-xamu garab. Mhm. bi yàlla dogalee nag ñuy jaxasoo ñoom di leen jox ay garab di gëstuwaale ci ñoom. looloo war nag Mali moom ñu am fa lu yaatoo yaatu daal lu kenn mënta sikki sàkk. looloo war a jiwaale tey da ngaa sa bopp wane wu imposé wu ba tax tey ñoom ñu jox la baat. waaw noonu la demee nag. xam nga maanaam lu dara joo gis rek daraa tax. dëgg la te suñu borom day wax ne ku la xaq wala kaana muran. ma toog di wax loo xamante ni bii naka su dul noonu la waaye ñi may seetaan te xam ma xamee ma mhm. Mali xamee ma biir Sénégal gii. Mhm. xam na li may wax lu leer naan ñu ne lu amul sikki sàkk. Mhm. Euh, li tax nag émission bii mu neex ma mooy daanaka euh, ñi ma boole ak moom ñëpp dañoo liggéey ak moom mu defal leen ay résultats mën naa ci si rek nga xamante ni mooy Tafa Ndiaye. Euh, secret wàññi biir man Tafa Ndiaye ku ma waxoon biiram boobu dama yaakaar ne sax ay saan la mais lan mooy secret wàññi biir ci yow. waaw tafa tafa boobu soo wëllëree woowu. kooku boobu xam nga ne bi muy ñëw ci man. sonnul dama yaakaar daa sànn. <laughs> waaw ndax boobu dem na ba ab silen maa sax daanaka mënu koo sol boobu yére yi ci bëgg jaay bi rek ñu ñu baal ma ci kàddu yi. dëgg la waaye tafa bi mu ñëwee. Mhm. bi ma ko joxee garab gi wàññi biir. Mhm. mooy garab gii. dëgg la. bi ma ko joxee garab gi wàññi biir bi mu ko jëfandikoo mhm. dafa ne maanaam man fu ni jënd naa fa garab mënuma mhm. am résultat mhm, mais garab gii bi ma ko jëndee la sama biir commencé rës te fi mu ne nii biir bu rëy dafa doon loo xam ne li muy bon bon ci jigéen li muy ci góor la gën a bon dëgg la ndax biir bu rëy ci góor dana ko wàññil ba wàññil ko sax kàttanam ndax biir bu rëy sëb la la ko bënnang ci biir liy rëyal biir ci biir la ne ki nga xamante ne bii maanaam biiram dafa rëy day am graisse gu bari ci biiram. Mhm. graisse gu bari googu nag maanaam dafay fatt tiwo yi nga xam ne. Mhm. fi la bu waree bu waree am rapport. Mhm. foofu la deret bi war a jaar di dem ci sàkkara bi. bu biiram rëyee nag tiwo yooyu day fatt. moo waral c'est rare ngay gis borom biir bu rëy ba pare nekk jàmbaar ci ci ci lal bi. nañ ma baal ci kàddu yi. waaye garab gi képp koo xam ne jox naa la ko. nga bëgg a wàññi sa biir boo ko utiliser sa biir dina wàññeeku. te wexul deful dem na ba nga xam ne garab gii boo amul ataay mën naa remplacer sa ataay boo amul café mën na koo remplacer. Mhm. ndax garab gi dafa neex man yoruma garab gu weex. Mhm. du la indil benn effet secondaire tamit lu naturel la ndax ay garab lañ ko defaree yi fi mag ñi bàyyi woon. Mhm. boo ko jëfandikoo sa biir res lu sa biir rëy rëy boo ko jëfandikoo sa biir sa biir wàññeeku. parce que am na ñoo xam ne am na jigéen ñoo xam ne fi mu ne nii mënatuñoo sol tay baas. dëgg sol robe bu jël taay ndax biir bu rëy. mais lii nag moom boo bëggee tàggoog biir wér daal jëfandikoo mhm. waaw jëfandikoo ko rek sa biir wàññeeku. Mhm. ci lu wér. Mhm. Euh, bii nag xale yu jigéen ñi ñoo ma ko ñoo ma ko ñooma ma ko yóbbante. muy ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax taay fil yi parce que taay fil ku ne xam na ni. Euh, tàngaay wi daanaka ñooy aye. may seddaay bi duñ aye. muy wàllu maye yaram. waaw wàllu maye yaram moom moo nekk nii. bii day may yaram góor day may yaram jigéen. jigéen gi nga xamante ne bii dafa jeex bëgg am yaram wala góor gi nga xam ne dafa jeex bëgg am yaram mhm. bu ko jëfandikoo dana am yaram mhm. ndax garab gi garabu mag ñi la mhm. man xam-xamu mag ñi la yor lool la yàlla dogal fii bu fekkee ne maanaam gone dafa dafa xiiba noonu wala mu feebar wala mag moo xam ne dafa jóge ci feebar mag ñi dañ ko daan yebal ca dëkk ba bu demee ca dëkk ba garab gi la jël di ko laax Mm-hmm. di di ko booleeg laax di ko ko jox mm-hmm. bu ko jëfandikoo ay fan fukk 15 jours rek bu ko jëfandikoo maa maa du ko mat sax mm-hmm. boo ko gisaatee doo ko xàmmee ndax am da ko utiliser jigéen da ko utiliser te wexul deful dara du lay da lay may appétit dalal sa xel loo jeex-jeex boo ko jëfandikoo am yaram loolu loolu mooy li am voilà gars yi mu ngi noonu Cheikh Gaye borom jooni jooni euh, man nag wax dëgg yàlla li gën a neex ci liggéey ak moom mooy li muy jaay baax na amul effet secondaire te jooni jooni la da ngay def léegi gis léegi doo ci am benn jafe-jafe ma ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu euh, yokk awra xam naa ñoo ci defal ba teral leen. Mm-hmm. waaye dañ dul mën a citer tour parce que domaine boobu moo sensible. dafa sensible wàllu yokk awra lan moo ci sa secret. waaw yokk awra moom li may wax rek fi mu ne nii téeméeri nit yoo wàññi biir Sénégal. Mm-hmm. juróom-ñeen fukk yi gëmuñu yokk awra mhm. te yokk ra nag lu am la ndax yàlla suñ borom garab yi nga xamante ne bii moo ko wàcce ci kaw suuf mhm. bi mu ko fiy wàcce pour ñu jariñoo ko rek moo tax mhm. ki nga xam ne nag maanaam dafa am dafa jàpp ne am na xam-xam ba tax mu taxaw ne yokk ra amul kooku man ay waxam wax dëgg yàlla du ma ko considéré ndax lu waay amul sa waay koo amul te yokk awra doon na loo xamante ne bii ñi koy woote woo bari ne waaye ciy am résultat bariwul dëgg la garab gii ma lay jox nag boo ko utilisé te sa awra yokkuwul boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi mhm. boo ñëwee ma delloo la sa xaalis ndax li may def dafa leer mhm. xam nga yàlla suñ borom mooy xool ku ko neex mu def ci moom la ko neex mhm. ndax dama lay wax benn affaire rek gis nga réew mii ma dëkk di Sénégal sama ñaari waajur gënuñu fi daara ya ma doon jàngi rawuma fa kon xam-xam bii ma yàlla jox da koo neex rek mu jox ma ko xam-xam bii lu leer naññi la yokku aw rek képp koo xam ne jëfandikoo ko gisoo li ma la wax mhm. boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi mhm. yàlla rek mooy sama seede mhm. waaye garab gii ku ko jëfandikoo sa awra yokk ci lu amul sikki sàkk te lu la indil effet secondaire boo utilisé woo ba gis ne ni mu toll baax na rek nga arrêté waaye niñ lay wax boo ko ko defee sa awra yokk billaahi ma la ni fàttali ni garab yi nga ñu gis nii ay garab yu naturel la ay garab la yoo xamante ni ci sunu borom la jógee ñu meññ ko ci nekkul garab yoo xam ne dañ koy euh, ma ñëw ci li nga xamante ni mooy baatu kër gi li nag moom association du ma wax sax tur mais ñoom ñoo ma jox question bi muy baatu kër gi lan moo ci sa secret. waaw baatu kër gi moom garab gi biñ koy defar. Mhm. tëbu tëb tudd baatu kër gi. Mhm. ndax bañ koy defar di ko wër ci luuma yi di ko jaay booba garabu kàttan rek lañ ko tuddee woon. Mhm. waaye ñu gis ne nag ñenn ci wolof yi. di ko jël di a ñàkkoon kàddu seen kër ndax néew doole ci wàllu lal di ko utiliser di amaat baat seen kër clients yi kon ñoo ko tuddee baatu kër gi ndax dafa am génn góor goo xam ne wax naa ko ay yoon yoon daf ne ma Italie la ne woon yàlla dogal mu yor ñaari so ñett ñaari soxna waaye maanaam bi mu ñibbisee bu ayee ci soxna su ndaw si daanaka ci télé bi lay fanaan programme bu jeex mu seetaan beneen xam nga li ma la wax waaye nee na bi mu amee garab gii nga xam ne mooy baatu kër gi dafa yàkkamti tëdd sax jot ba mu nga xam ne demoon na ba nga xam ne soxna si da ko daan bàyyi war koo defal ndékki bàyyi ko fa dem marché ndax meregum ko mere ndax meregum ko lu doyo doy waar sax mhm. waaye bi mu amee garab gii di baatu kër gi nag mhm. bi mu ko utilisé woo maanaam nee na fi mu ne nii fitasu fitasu sax bu ko defee soxna yi xam leen wax mhm. te garab gii mooy di kër gi te damay wax benn affaire garab gi dafa am lu ci ne parce que dafa am jooni jooni am traitement bii mooy jooni jooni bi am na traitement traitement bi loo neexee ñu traité la ko ba nga mel na nga ba nga delluwaat ndaw bii mooy jooni jooni bi utiliser léegi gis léegi mhm. te bu ma la joxee boo utiliser gisoo li ma la wax boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi mhm. boo ñëwee ma delloo la sa xaalis loolu leer naññ la mhm. garab gi du amul effet secondaire te garab gi wéxut feebar boo yor man nga koo naan boo amee estomac man nga koo naan du yëngal sa estomac boo amee jabet man nga koo naan du yëngal sa jabet parce que garab nag bu fekkee da koy jox nit mu ciy faju da nga koo war def loo xamante ni bii du am loraange moo tax garab gi ñu ko ci anam yu wér ko ba mu baax Mhm. boo ko utiliser li nga soxla lépp dana la ko jox ci lu amul sikki sàkk mhm. mooy mooy baatu kër gi mhm. ku bëgg am baat sa kër daal ak loo ko ñàkk-ñàkk sa kër boo ko utilisé am baat ci sa kër billaahi wallaahi te boo gisul li ma la wax boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi xam nga ni may waxee nii xaw naa xaw naa dooy waar ci ku xamul la waaye man li ma yor laa xam. Mhm. ki ndax ki la naan kaay boo ma jaay la bu baaxul nga ma dellool sa xaalis bëreetul ci réew mi. non est-ce que am na fi sax nga wax. dëgg la am na fi man ñi may siifur bari na waaye gisaguma fi loolu. Mhm, mhm. du ma sikkal lu kenn yor nag. parce que man du ma xas borom xam-xam kenn ku ne xam-xam boo yor. bu ma la dimbali doomu aadama yéene naa la ko. ndax doom aadama yi seeni tawat di saafaraw rek loolu moo ma ñor. ku ma ci man a jàppale rek ma jël. <tsk> garab gu am solo ngi nii. xam naa ci dara parce que. defar na defar na sëy yu bari. waaw maa ngi ci maa ngi ci fa rappelé wu koo xamante ne ndeysaan euh, keroog bi mu lay tuddee doom dafa dafa ma woo ni ma santal ma sëñ bi gërëmal ma ko parce que sama kër naroon naa tas. waaye tey su ma demee ba yàlla may ma bant su ma dee gor mhm. ku tax nga tax boo goree ni ko yaa tax keroog ba mu lay tuddee bant fii nii nga xamante ni mooy parcelle mhm. maa nga fa toog wal wallaay ndeysaan kon mën naa seede loolu noonu ci garab waaw waaw noonu la demee xam nga wax bu amul seede neexul mhm. te wama sayit naa ilaa bi maa xalim naa loolu yaa ko fi wax léegi kon nag ñun du jàng ba pare nag jëlli yàlla wax di ko teg fële di teg suñuy wax loolu xalaatuñ ko waaye garab gii dimbale na ku ne. Mhm. dimbale na ku ne. Mhm. billaahi wallaahi di garab gii dimbale na ku ne. Mhm. garabu baatu kër gi. man mii wax nag bu ñu xool ci samay at. ndax ku ma xool ci samay at di nga defee ne xam-xam bii sax gone waru koo mën a yor. mais xam-xamu mag ñi laa yor parce que gone bu loxoom setee mu mën a bokk gi mag. dëgg la te lii dama koo saytu tarbiyee ko. am ay kilifa nag. du lu ma neex wax du lu ma neex def. samay kilifa ñoo ne ci sama ginnaaw. lu may dugg dama koy xam mu leer naññ. nga li waaye garab gii képp koo xamante ne bii garab gii mooy garab goo xam ne du la mas a wor keroog ba nga ko gën a yaakaare ba utiliser ko boobu la gën a mën a faj sa soxla xam nga am na garab yoo xam ne dañuy wor ndax da leen di jënd uti bëgg am guddi gu neex nga utiliser leen programme yi def sa yëpp boo ko utiliser la nga ca doon seet doo ko ci gis waaye garab gii du la mas a wor wallaahi laasim garab gii du mas a wor heure boo ko soxlaa mu fajal la sa soxla ci lu ci lu wér ci lu wér wallaahi baatu kër gaa ma ñëw ci question boo xamante ne nag euh, ñor na ñu bari ci jamono ji te jamono ji ñu bari nga koy utiliser wala ñu bari nga koy jël di ci feebar boo demee ci hôpital yu mel ni ay polyclinique da ngay yërëm sax jigéen ña fa nekk dañ leen di jox ay garab ñii ñu leen di jox loo xam ni baaxul mhm. muy lan yokku ans mhm. te man gis naa ci ñoo xamante ni tey mënatuñoo toog ci benn chaise ñaari chaise dañuy toog grâce à toi lan mhm. mooy secret yokku ans waaw xam nga yokku ans li ma la wax ci yokku awra bi rek xam nga toog fi nga toog. Mhm. ne dama yokk ans loolu dafa yomb. Mhm. waaye liggéey dafa laaj ngay am résultant mhm. te garab gi produit bii nga xam ne nag mooy yokku ans. képp koo xam ne maanaam ak lu sa der dëgër dëgër laa wax lu sa der dëgër dëgër xam nga am na ñoom dañ lay jox lu nga utiliser ko doo gis résultat ñu naan la sa der daa dëgër. dëgg la mais loolu du affaire bi. parce que li ngay jaakee bu baaxee. ku ko utiliser daf cee war a gis boppam. kii maanaam noo bëggee forme li commencé ci kaw ba ci suuf. noo bëggee forme boo ko utiliser mu joxe la noonu forme dafa am loo xam ne nag suñuy teggin mayuñu ñu ñu di ko tudd ci télé moo tax kon wax ji dañ koy wormaal waaye produit bii li muy def maanaam yokku anse ci gën a tuuti li jóge ci kaw ba ci suuf noo bëgg sa forme boo ko utiliser mu joxele ko noonu dalay yokkal sa anse boo ko commencé utiliser neuf jours ngay commencé gis résultat bu ma la ko joxee boo utiliser boo gisul résultat boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi li may wax lu ma xam la dëgg la ku it ku ma jox sama garab nga utiliser ko gisoo résultat boo ñëwee ma delloo la sa xaalis billaahi wallaahi boo ñëwee ma delloo la sa xaalis. boo bëggee am aas. Mhm. wala dënn wala dënn bu rëy am na yoo xam ne du ko tudd. Mhm. lii ne ci kaw rek fii. Mhm. boo bëggee mu yokk. dëgër mel na mu war a mel. boo ko utiliser am résultat day yokk ba ni mu la soobee. nag am na yoo xam ne du ay teggin ñu di ko wax ci émission ndax loo gis lu ne yar teggin def cee am solo. waaye produit bii ñi nga xam ne yàlla dafa dogal dañoo am njaboot yu bari wala ñuy def rapport lu bari ba seen awra yaatu mooy mbokki jigéen ñi nañ ma nañ ma nañ ma jéggal ci kàddu yi ndax buñ sañoon lu ñuy wax ci yar ak teggin lañ koy teg waaye képp koo xamante ne bi jigéen joo xam ne dafa bëgg awraam xat bii su ko utiliser awraam dana xat te bu fekkoon mu amee infection bu ko utiliser infection am dana deñ hmm. doo ko utiliser sa kanam di xesen doo ko utiliser di am ay picc danga ko koy utiliser day mel ni da ngaa tàng ndox rek mm-hmm. naan noonu lay demee mm-hmm. waaw boobu bii moom nañ nañ nañ bàyyi noon rek ndax am na ci yooyu daal duñ ko mën a wax lépp nañ nañ bàyyi noonu rek waaw mm-hmm. li nga xamante ni mooy wàllu sëkkal karaw bëgg naa nga dil ma ci ay leeral ak lan moo ci sa secret waaw sëkkal karaw moom bii secret bii ñu ngi ko jële woon ci làkkat yi sëkkali sëkkal secret sëkkal karaw karaw moom yaakaar naa ak ak noo bëgg mu toll ko ak noo bëgg mu toll ko boo ko utiliser sa karaw dana toll noonu fépp foo xam ne dafa war a am karaw ci nit boo ko fa diwee dana am karaw loolu loolu loolu loolu loolu mooy li am fépp foo xam ne dafa war a am karaw ci nit boo ko fa diwee sa sa sa karaw dana sëq ndax fi mu ne nii am na ñoo xam ne dañuy dem ba seen karaw day leel leel goo xam ne ñëw ba ci ndong li am ñoo xamante ne bii maanaam mënuñoo fexe-fexe ba seen karaw gudd bu commencé gudd sax day dagg wala muy ruus bii nag boo ko utiliser sa karaw day sëq day dëgër te góor ñi nga xam ne tamit dañoo bëgg karaw gu sëq wala ñu bëgg ay faas mooy sikkin yu kii rek am ay faas buñ ko utiliser nañuy def see guddi bu ñuy tëdd ñu diw tuuti rek xool mhm. bala ñoo am bala ñoo am deux semaines am ay faas mhm. yu yu toll nu leen neex mhm. boo bii mu am naa naat résultat amati ko ci ci lu leer nañ ndax lépp loo xam ne maa ngi toog fii di ko parasanti dama ko xool ba mu nekk loo xam ne lu wér la lu wóor la ma koy doog ko jox euh, doomu aadama yi parce que yebuma sénégalais yi te bëgg naa mbedd mu ma jaar jaaraat fa. Mhm. amoo yàlla dogal na nag amoo fenn sens interdit. Mhm. boo gisee nag may wax ne ku gisul li ma la wax boo ñëwee ma delloo la sa xaalis dama xam li ma yor. Mhm. ndax natt naa ko nattati ko nattati ko ba xam ne lii ku ko jëfandikoo am résultat. noonu la dem. ma ñëw ci li nga xamante ni muy lu sensible muy wàllu estomac ma gis ñu bari ñoo xamante ni tey dimbali nga leen ci. waaw xam nga estomac dafa doon loo xam ni tudd baat bi moo gën a yomb faj ko. ndax gis nga nit mu ñàkk ay millions ci hôpital wala mu ñàkk ay millions feneen ak feneen du mën a wér ndax estomac nag neexut a faj waaye garab yi nga xam ne yàllaa ko saxal ci kaw suuf digal ñi ñu di ko fajoo loolu buñ ko jëfandikoo rek la ñu ca yàlla wax danañ ko gis ndax yàlla soxorul doomu aadama yi moo am ñu soxor waaye yàlla suñ borom soxorul képp koo xam ne da nga am estomac wala ulcère ban terewal la lu wex ak estomac bi lu mu yàgg-yàgg ci yow ak ulcère bi lu mu yàgg-yàgg garab gii boo ko utiliser sa estomac wér mm-hmm. te naqariwu te jëfandikoo meew rek lañ koy booleel mm-hmm. dafa lewet doom sëfut dara dafa lewet mm-hmm. soo ko utiliser ñetti fan dong boo ko naanee da ngay xam ne yow mii commencé nga naan garab loo gën a utiliser muy gën a wér walaay lancim am na ñoo xam ne pot bi jox naa leen ko avant muy jeex seen estomac wér waaye li ma la mën a garanteel mooy pot bi du jeex te sa estomac wérut loolu loolu mooy li am mm. euh, question bi nag ñi nga xam n ñooy chauffeur yi ñoo ko yónnee léegi ni ma laajal ñu ko parce que gis naa ci ay chauffeur yoo xam ne ginnaaw yàlla tey dimbali nga leen. Mm-hmm. parce que ku ne xam na ni ñi nga xam ne dañuy daw Dakar ko di def ay voyage toogaay bi day yàgg lool te ku ne xam ne émirate bokk na ci li koy gën a gaaw a joxe mooy toogaay bu yàgg transport. Mm-hmm. ñoo ma envoyé question bi ni ma dañu bëgg nga dimbali leen ci wàllu émirate. Mm-hmm. waaw loolu moom xanaa ñoom li ñuy wax daanu dajut suuf. loolu moo ci ne. waaye yaakaar naa chauffeur yi ma ci dimbale bari na bari goo xam Bamako Dakar sëfooru biis yi ak sëfooru camion yi ñooñu ñi ma ci dimbale bari na am na ñoo xamante ne bii bu ñu ma gisee dinañ xam ne man mii maa leen joxoon garabu imurit ñu jëfandikoo ko seen imurit wér ak téyeer yi toog toogaayu métti wala ñuy liggéey ci bureau yi képp koo xam ne jox naa la garabu vingt 24 jours moom laa koy traité xam nga nag du ma fi nekk di la jox garab naan la da nga garabu imurit naan la da koy jëfandikoo léegi sa imurit wér léegi ndax imurit doxiwut noonu imurit ab traitement la waaye bu ñu la joxee traitement bi 24 jours boo ko ko traité woo sa hémorroïde wér ba jeex tàkk te garab gi boo ko commencé naan di nga xam ne commencé nga naan garab te dama koy waxaat man yoruma garab gu wex yoruma garab goo xam ne ku ko naan mën na laa fajal la nga bëgg faj waaye mu ne yokku leneen hémorroïde bi lu mu metti metti am parce que am na ñoo xam ne seen hémorroïde dem na ba àgg foo xam ne buñ toogee ba jóg fi ñu toogoon day tooy am na ñoo xam ne hémorroïde bi bu leen attaqué ba attaqué leen buñ demee ci toilette bi lañ bëgg lañ fa bëgg a def duñ ko fa def buñ demee daanaka dañuy nañ demee woon la ñuy dikkaate te nit ki nag bu dee lekk di naan te du dem tuwaale lool feebar fariwu ko ko képp koo xam ne jox naa la garabu hémorroïde gi bu fekkee da nga doon seere sab seere dana deñ hémorroïde bi bu doonoon picc ci biir na ci biti wala ci biti wala ci biir boo ko naanee dana seey wér wér pelek du ma dànkuma ko dama koy faj ba mu wér loolu mooy li am foofu nag laa duggee ci li nga xamante ni mooy wàllu siti waaw Siteu moom comme li ma la wax rek ñun lépp loo xam ne ñu ngi koy wax fii dañ cee faj ay nit ba am ci résultant parce que am na ñoo xam ne seen Siteu àgg na ci fuñ toll di wokkutu seen yaram di génne ndox am ñoo xamante ne bii day def karaas ci seen i bopp nga xam ne fuñ tollu seen bopp day weex am ñoo xamante ne bii Siteu dem na ba àgg ak ñoom ci néewloo leen kattan. nga xam ne am na ñoo xam ne fi mu nii jën rek buñ ko lekkoon ñaari fan seen yaram commencé xesen mm-hmm. te loolu Siteu moo koy def. siti bi nag lu mu metti metti moo xam say tànk day xar wala sa suufu tànk yi di tàng wala léeg-léeg guddi gi boo tëddee sa bopp bi tàng jër yooyu yëpp siti moo koy def buñ la joxee suñ garabu siti tamit ci 24 jours lañ koy traité nga tàqalikook sa siti insha allahu rabbi mhm. loolu loolu mooy li am ma leen di fàttali nag li gën a neex ci xam-xam mooy dafa jàngi traditionnel ba pare dem jàngaat li nga xamante ni mooy daanaka wàllu médecine parce que mhm. li muy faj nii nekkul ni ay reen ak yooyu dong la parce que loo xam ne da koy jox nit mu koy jëfandikoo dem ba laal wàllu médecine mm. yaakaar naa war ngaa dem gëstu ko moom bokk na ci ñi nga xam ne dañoo dem gëstuwaat loolu ci li nga xam ne mooy wàllu médecine mm-hmm. ah, fi may jeexalee mooy jigéen buy gis règle muy xaw a metti wala sa règle di retard waaw xam nga lool sax sëñ bi man boo ko tuddee sama yaram day daaw mm-hmm. ndax ba ma sañoon kenn du am métit rawatina jigéen mm-hmm. ndax jigéen yi nii sonne ci kër yi coono boobu rek daa doy kon bu buñ ci tegee jeneen jàngoro nag moom dafa may diis mm-hmm. waaye képp koo xam ne da ngay gis régal mm-hmm. muy metti wala sa régal di tardé boo ko gisee bala nga heure ba nga ko doon gis mm-hmm. doo ko ko gis kooku boo ñëwee ma saafara ko ci lu gaaw a gaaw nag bu ma la joxee garab gi ma lay jox boo ko utilisé booy gis régal day sedd guyu dara du yëngu heure ba mu daan ñëw tamit du dépassé te ñëwul lii mooy li am parce que fi mu ne nii wàllum régal dafa nekk lu doy waar que am na ñoo xamante ne bii ñàkk gis régal bu normal mooy dem ba xañ leen ñu am doom ndax nit ki bu régalam du normal pour mu am doom du yomb kon nag loolu képp kum dal boo ñëwee ci man dinaa la ko saafaraal ci ci daar daar bi lool moom lu yomb la moom boo ñëwee ma saafaraal la ko ci lu amul sikki sàkk waaw voilà gars mu ngi noonu li ñu leen wax ni lu duuf ci nag bi xajul ci cin bi waxtaan bi neex na trop mais dafa war a jóge waat fii gis ngeen dem ba Mali te bëri na livraison yoo xam ne ñu ngi ci suuf di ko xaar may nañ ci waxtaan nag ma wax ni képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo ay garab xoolal garab yi ngay jël parce que am na garab yoo xam ne da nga koy jël mu am effet na koy jël mu lay indil problème santé mais boo bëggee garab gu baax wóor nekk loo xamante ne nii boo ko jëlee doo ci am benn jafe-jafe ñëwal nga jokkoog Cheikh gay borom jooni jooni ah numéro téléphone mu ngi noonu di daw ci réseau yi ah ñu ngi leen di jox yeneen dig daje xanaa kaddu yooyu tàggatoo rek. waaw kaddu yi may tàggatoo it mooy xam nga léeg-léeg réew mi li fi nekk daa bari. Mm-hmm. waaye ñun dañuy leeral doxin wi nga xam ne ñun moom la ñuy doxe doxin wi mooy képp ku ma woo téléphone man lay jot mm-hmm. awuma intermédiaire mm-hmm. ndax sama liggéey dama ko organiser mm-hmm. tey jii su ma xëyoon encaissé dix personnes bala maa jëlaat xaalisu kenn dix personnes yooyu dama leen a libéré seen garab ban jot ci ma doog jox keneen ma doog a xaalisu keneen numéro Mali laa yor ak numéro Sénégal. Mhm. su ma nekkee Mali boo ma woowee ci numéro Mali bi jot ma. Mhm. boo ma woowee ci numéro Sénégal bi jotoo ma bàyyil ma message. Mhm. WhatsApp yi mi ngi dox 24 heures sur 24. boo ma woowee man ngay jot parce que xam nga am na loo xam ne dafa neexut. nit ki nga xamante ne bii daf laa seetaan doy loola wala ñu boole la ak moom mu doy loola. woo la téléphone nga di ko jox keneen loolu koo ko def rek euh, yaa ngi koy tooñ. moo tax heure boo ñu woowee jot ñu lay sa itte boo ñu ko waxee bu fekkee luñ man la. Mhm. danañ la ko defal mhm. bu dee du luñ man nag ñu ne la mënuma ko mhm. ndax ngàntu lu teew nag ak may la kon loolu nga xamante bii loolu la ñuy leeral képp koo xamante ne bii woona ma dana ma jot te buñ jëflantee sa xol dina sedd incha allah waaw ñi ngi ñi ngi nuyuwaan ñëpp di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaan ci àdduna bi yëpp. Mm-hmm. di ñaan lépp luñ fi wax loo xamante ne bi kàddu yu yu tegginu wut la. Mm-hmm. nan ñu ko jégal matadik doomu aadama la waaye jubluwuñ ko ci. Mm-hmm. ndax toujours buñ sañoon suñuy kàddu day am war mu am ay teggin. ba ku ne mën koo dégg. ndax nii ngeen jàkkaarloog man nii. sama la ñuy jàkkaarloog man samay ñi gën a nekk ndaw ci sama famille ci laa bokk. kon am na kàddu yoo xam ne su ma ko waxee rek. xëy na jubluwuma ko ci def maara ci ñi ngi jégalu ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf